waaye itam dina la dalal ci bis bu sell bi nga xam ne mooy 18 safar di la nuyu di bàyyi ngay nuyu ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan. waaw alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo ngi nuyu bokk yi ñuy seetaan yëpp ci. CNT TV ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare di delluwaat sant yàlla bu baax ci teew bi ñu teew ci bis bu màgg bi di 18 safar di bis boo xam ni bis bu jullit yëpp war a bàyyi xel la ndax sunu maam Sëriñ Tuuba Ahmadul Xadim eh, doon bis boo xam ni bis bu ko ñoroon la ci dundam waxoon jàmm yàlla yëpp bis bi day eh, bëgg naa képp koo xam ni soppe la wala ngay taalibe wala ngay xarit bis bi bu jotee ngeen bokk yëpp ñëw sant lele ma yàlla loole itam moo nu indi fii nu bokk ko moom ak njaboot bi sant leen yàlla ci bis bi eh, nu nekk ñoo ngi tukkee ci région de Thiès bokk ci kër maam alxaaji alfahima combaan ñu ñëw nag ci ndigalu ki nga xam ni mooy xalifam tey eh, di alxaaji jibril combaan doon nag njaboot ci kër sëriñ Touba waaye doonoon ci xarit bu baax eh, teewaay bii ñu teew ni teew dañu ko ak moom ci bërëb bi lu tollook fanweeri at nu koy ànd ak moom ginnaaw bi nga xamante ne nag léegi xaw na jëm mag te moo toog ci xalifa ga foofa e, mu yëkkati loolu teg ko ci loxo ay rakkam e, ni ki porte parole bi nga xam ni moo ko yore tey Seydi Mouhamadul Mansour ak ay rakkam tey nag e, ñun ñu yebal nu fii nuy taawam tudd maam Alpha nu teewal fi waa kër maam Alpha yëpp tey ginnaaw bi ñu dégloo sa wax dafa mel ni que ni cosaan la seen diggante ak diggante Cheikh Ahmadou Khadim loolu moo waral màggalu ren gi nekk ci contexte bu doy waar di contexte Covid 19 waaye terewul ngeen ñëw ñu bëggoon xam lan moo waral loolee. waaw euh, wax nga dëgg yàgg na ndax diggante bi ci Mawlana Hadji Alfahima Combaan na woon ak Serigne Touba. amoon nañu diggante boo xam ni bu am solo la ndax euh, ci mag ñi wax nañu ni euh, jumaay bi di jumaay sëriñ Touba bañ koy def maam Alpha euh, dafa yebaloon njaboot ju takku ci taalibe foofa ni leen leen demal leen ma ca Touba ci sama mbokk ba liggéey ba muy def ci néegu yàlla ba ngeen dem teewal ma fa te nekk ci ndigal ca ñoom ba keroog muy jeex ngeen doo ko delluwaat loola itam lu yàgg la lool jabootu maam Alfa yëpp moom itam mu continuer loola di ko doxal di ko doxal ci kanamu ay magam ba ni mu ñëwee tey toog ci xalifa gi eh, mu continuer di ko doxal mu nekk loo xam ni itam lu rafet la loo xam ni la itam eh, lu warteef la ci mboolem jullit ndax sëriñ Abdou Lahad Mbacké yal na yàlla yokk seen leer ma daan ànd ak suma papa ñu ñëw fii bu nu màggalee ba màggal bi jeex ñépp dañuy toog bu ñuy tàggatoo mu ni yéen doomi jullit yi yéen eh, doomi soxna yi dama ni na ñëpp bokk góorgóorlu maase ànd jàpp jàppante nekk benn te bañ a tàqalikoo mukk ca waxu yàlla ja wa'tasimu bi hablillahi jami'an mu daldi def loxoom ni ni wala tafarraqu bu kenn taqali kook morom te loole itam bi e, sëriñ Baara toogee ca xilaafa gi feddaliwaat na ko ginnaaw bi ñu sëriñ bi yebalee ñu ñëw teewal ko fi keroog ñoo ko fekk ca tuubaa Touba ca tool ya keroog ba mu toogee lanu indi woon doon ko ziyaare sëriñ Baara keroog e, ab dar la bu mag bañ ko ko indilee dafa kontaan keroog ne lii day dafa bokk ci màndargay yoon gi ndax sëriñ tuuba ku ko xam ku ne xame ko ci jàmm yàlla xame ko ci li nga xam ni e, dimbale jaami yàlla yi waaye lii dafa bokk ci li nga xam ni day wane ni jullit yépp e, danoo war a seq li nga xam ne mooy diina lislaam bi diine lislaam bi nag doomi soxna yi e, seq biñ ci am nañ ko rafetal bu baax góor góorlu ci ndax du lu ñu bokk lu nu seq la keroog la leeral ni lu nu bokk dafay mel ni ndab boo xam ni dañ koo bokk keneen ku ne di ci jël la ca war bu yàggee dootoo fa fekk dara waaye li nu seq moom mu ngi mel ni der bi nga toog ci kaw tey kenn ku ci nekk am benn wàll woo amee ku nekk bu jàppee ci wàllam ñu yëkkati ko bu keroogee fanu soxla yóbbu fa li nga xam ne mooy lislaam ak diine ji dina fa mën a àgg kon loolu dafa tegtale waxu euh, góor gële ak gii wax kon kër gi di kër sëriñ Touba ah, wax dëgg yàlla këru ko jullit yëpp la euh, li nu fi indi tey mooy bokk li nga xam ni mooy xalifa bi fi nekk ci ndigalu sunu xalifa ga sëriñ Jibril euh, màggale sëriñ bi bisam bi di 18 safar doon bis boo xam ni fa tabarakallahu bis bu am solo la ci jullit yi. màggal gi tamit xam nañ ne dafa tombé ak mbas mu ñuy wax Covid 19 ginnaaw loolee sëriñ bi daal wax ne na ñi ni ñëw waaye nañ sàmmante ak mesure barrière yi lu mel ni ki takk masque ak laal gel nga gis ne fépp foo dem ci Touba boo dugg si jumaa yi obligatoire la boo dugg ci kër gi tamit obligatoire la naka ngay gisee réaction boobu taalibe yi def ginnaaw bi sëriñ bi joxee ndigal. waaw am na solo am na solo ndax itam wax dëgg yàlla. bi màggal bi di jub si itam euh, sëriñ bi euh, njaboot bi mu digaloon pour nu daldi euh, jokkoo ak mbooleem koo xam ni daan na fi ñëw doon ab délégation joxe woon na ndigal ni amma comme feebar bi xew ci àddina bi dina nu am soppiku soppeeku bi nag mooy fépp foo xam ni fukki nit daan na ci ñëw ci ay délégation daan dajaloo ci benn barab loolee itam ñu ni loolu xaw na soppeeku eh, tax na lanu xaatimoon ca li nga xam ne mooy leetar boobule mooy ni la ëpp ci nit ña war a ñëw ci délégation warul paase ñetti nit te itam kenn ku ci nekk booy ñëw na nga fàgguwaale li nga xam ne moom mooy eh, barrières yi may masque yi eh, góor góorlu itam di laal gel yi loola itam wax dëgg yàlla ñun eh, noonee nu ko soxla noonu lañ ko defee dégg noo fekk nu dogge ci julli ak loolu moo tax waaye sunu sunu sunu maske yi yëpp mu ngi ak ñun loola itam eh, lu rafet la ndax eh, dafa bokk ci bëgg sa bopp dafa bokk ci bëgg sa bopp feebar mënula te nit jaamu yàlla waaye itam fagaru dafa bokk ci li nga xam ni mooy wàll boobule. ba tax na itam euh, ni nu ko gisee ci mbokki taalibe yi fonk nañu lool li nga xam ne moom la sëriñ bi wax te itam ñoo ngi koy jëfe euh, mu mel ni euh, wax dëgg yàlla loolu dañ koy sante yàlla bu baax di ko sante sëriñ bi ndax dafay wane ni diine ji moo ko ñor nit ñi tamit ñoo ko ñor waaye wérgu yaram bi tamit lu ko ñor la ba tax na itam wax dëgg yàlla loolee itam lu am solo la bi ñu ñëwee itam gis nañu loolu ndax kër gi ku ne xam na ni eh, waxtu wi daan na fekk mu gën a xaw a rimba lool waaye macha allah organisation bi am na solo eh, nan ko waxee ak nan ko déggee itam bi nu ñëwee noonu lañ ko fi fekkee wala lu ko raw sax ci organisation boo xam ni bu rafet la ci wàllu màggal bi. kon loolu itam wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu bu baax a baax di ci sant sëriñ bi ci ni mu ko doxalee ak bokki taalibe yi nga xam ni itam loolu lañ teg ci seen loxo te ñu koy doxal ni ko sëriñ bi bëggee ak ni mu gëna rafetee ci jàmm yàlla yi ci ñëw bi. nan ngay tàggoo ñi lay seetaan ci GMT TV. waaw xanaa di leen gërëm di leen sant bu baax euh, di leen ñaanal yal na yàlla yokk seen man-man yàlla yokk télé bi. gën ko yaatal bu baax a baax dale ci kilifa ga ak euh, euh, ñi nga xam ni ñoo koy teewal ci kanamu njëpp waaye di gën a wax euh, jullit yi ñu gën a góor góorlu sàmm wanteek li nga xam ni mooy ndigal yi ñu leen jox ndax ab jullit ab taalibe lay wartee fam mooy bu ñu la sante ab ndigal rek nga jëfe ndigal boobu li ñuy ñaan yàlla yàlla na yàlla itam nangul nu màggal bi yàlla yàggal fi kilifa yi fa tabarakallahu waaye lii di feebar bi di covid 19 bi yàlla na ko fi yàlla jële ba mu jeex ci kàttanu yàlla di ñaanal jullit yi ñëw màggal yépp yal yàlla indi leen ci jàmm waaye yal leen yàlla delloo ci jàmm mboolem xalifa yi yàlla defal leen wér ak gudd fan eh, ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal itam jàmm asalaamualeykum wa rahmatullahi wa